samedi 19 janvier 2019 mbokk yi ñu ngi leen di dalal fi nga xamante ne moom mooy arène nationale la fii nag tey ki nga xamante ne moo ñu fi woo muy lay production moom moo dalal euh, combat bu mag bi nga xamante ne dox na ci diggante euh, Pape Sène ak ki nga xamante ne moom mooy Soundiata ñu fas yéene fee jongante pour la première fois arène nationale daal di tijji sama copain naka mu. ça yaa ngi ci jàmm. ñu ngi rek sant yàlla barka la. combat bi yaak Pape Sène. waaw waaw ci kanam tuuti. ñi ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam. le moral est bon. waaye le moral est yaa ngi bëre ku am expérience. waaw ku ma ku am expérience ku ma jiitu ci làmb wax dëgg yàlla may ma sens. di ko ci sant mais di ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam quoi. mbaa doo mbaa am mbaa mbaa excès confiance dalu la. non non dama koy jox cëram. parce que Pape Sène tamit néewul doole quoi. néewul doole waaw. sant rek ñoo ci kawam. wa nga jël benn boy bu ñuy wax Soundiata mu nekk ci yoon alors lan moo tax nga jël ko. man jël ko dafa def ay problème rek xam nga moom sens kon tey bu ñu gisee ay boy yu mel preuve da war a may sens pare nga pare naa pare wu parce que tamit boo xoolee lamb ji yow xam nga li la wax yaa ci média bi nga nekk lamb ji mercredi la taxaw yaa ngi dégg bon mais nag grawul tey eh, ñun moom xama rek ay compétiteur lañu waaw waaw vraiment. bulu rouge li am na benn avertissement. ñoo tolloo am na ñaar. ñaar eh, borom ngeen bulu rouge li am na ñaar. Eh, ki nga xam ne mooy doom Bisaawo am na benn. am na benn bu temps bi jeexee fi mu toll kii doomu Bisaawo moom mooy gagné. mais actuellement est-ce que du looloo tax doom Bisaawo ah jeex na jeex na. Oh, oh, combat ba jeex na jeex na jeex na. Bissaawo gagné na de. doomu Bissaawo gagné na. décision arbitrale. laay lay la laa gagné na. mais oh, oh. am na victoire félicitations à lui mais mais coach kan moo ciy tagu. maa lay màggal bu wér doom day ñu ngi lay ziar bu wér. alors lamb namoon la nga nekk benn phénomène boo xamante ne boo ñëwee boo tuusee mu neex boo bëree mu neex ak ar bi kan la fa gën a nekk. waa sant yàlla julli ci Yonent bi sant suñu ñaari waajur. waa bëre woon ak Jokal daan ko pare dem Amérique ñi ngi woon Amérique ñi ngi doog a ñëw. waaw entraîné liggéeyaat ñëw toog xaar combat daal incha allah. alors fu mu tol nii ndax ñu ngi wax démarché say komba wala. waaw ñu ngi démarché samay combat am na ci combat yu may wax ak ay promoteur beneen camp bi la dese am na ci mbër yoo xam ne su ma naree bëre baay lamb lu mu dee dee làmb am naa fi takkusaan bu ne. yaa maa ngi toog nag di xaar am na promoteur yu may contacter juboo nañ ak ñoom ñi ngi wax ak beneen camp bi maa ngi toog di leen daal euh, promoteur du am problème ak yow. non adversaire bu jaadu xam nga mbër doo am loo def ci làmb. ba toll benn niveau bi di saraxe sa bopp man du ma saraxe suma bopp combat bu raisonnable rek amateur yi xam nañ ko bu ñu ma ko contacter du am problème pour mu taxaw. du ay suuf di indi Cheikh euh, dama naan booy il faut ñuy dem fu diin yi nekk ak saabul diin boo xam ne bu bari la pour mën a habitué wu fii pour bëre parce que am na yenn prise yoo xam ne boo ko fi porté bu say tànk amul doole da ngay wàcc wàcc daw si si enceinte bi loolu daal la ñu war a xoolaat Cheikh. mën nañ koo mën nañ koo euh, yéegalaat barrières yi loolu yëpp mën na ne. waaw lool lépp mën na nekk combat ba dem na Cheikh. dem na ci diggante ki nga xam ne moom mooy jaxal jaxal de nag moom yàlla nañ ci la musal. laay laay la laa jaxal yàlla nañ ci yàlla musal. jom ak jom. jaxal. Eh, eh, jom door na ko. jonkoor mu ngi koy pompé taf na ko ah, plaqué na ko mu bañ. mu ngi koy pompé sax na sa geñoo ko da koy buddi bañ na. ah xañ na ko boppam. def nañ roofo dafa rasu. fi mu toll tànk si saako bi ki nga xam ne moom. mu ngi door hypercule. Eh, joma ngi koy xëcc door na ko mbot mu ngi koy forcé waaye bu mu forcé. ndeysaan loxo bi la jël dugal ko fi nga xam ne mooy si geño gi loxo droite. ki nga xam ne. jaxal wóorul. waaw xam nga jaxal moom déggoo léegi mën ne yàlla ñu si yàlla musal. yàlla musal. waaye nag lu munul ñàkk la Cheikh il faut mu am. <laughs> waaye yàlla na yéex. xale yaa ngay xeex. mu ngi door mu ñam ñamaat soos soosaat capp cappaat. mu ngi hey suq na flexionné. war ko. ah gone gi mën na bëree. ndeysaan njaxal dellu siwaat na ña xeex. oh kawo attention kawo. oh. di jaxal door na léegi benn arrêt mooy taxawal. defaat nañ roofoo korante. combat bi métti na. waaw eh, ñaari xale lañ. Eh, Cheikh da ngay dégg mag ñi ñu ne àll la fay ñuul moo di ñag. Eh, en tout cas li ci wër te wër. mooy ñu ngi xeex xeex gu metti ci suuf. waaw boobu mooy bàccum gerte bi moom la gars yi wax bu sew bi. dañuy naxante xale yi ñeme nañu. waaw xam nga dañoo ne Cheikh sport de combat la ñu ne ñu boole ñaari discipline muy bëre ak dóor nga war ko cumuler mu doon benn mboot na ko mu bañ mu penk ko. mu dellu si waat lan moo tax muy forcer mboot mi. waaw mënin Cheikh nit du bàyyi mëninam ci ko. <laughs> Cheikh nit ak mëninam. du ko bàyyi. déedéet Cheikh. oh su fekkee ne dafa am yoon wooy jaar pour dem Patte d'Oie. waaw di ko def mu lay jik chaque jour. waaw doo ko bàyyi. mukk du ma ko bàyyi. <laughs> kookoy kot su Cheikh. sama turandoo kot su Boy Niang. yàlla ko may xam-xam boo xoolee Boy Niang ni muy bëree xam-xam la waaye ñaari xale yaa ngi xeex. waaw Cheikh xam nga dañoo ne. Euh, yow kenn yow. parce que savoir soo nangoo partagé. te li ngay def nii partage la foo ma fekk rek ne ma grand nangam eh dëpp na ko col jël na ko daan na ko oh, jom daan na ki nga xam ne mooy jaxal jaxal wóorul. jaxal wóorul jaxal wóorul. jaxal faralu ma ko wóor sax oh, oh jom daan na ko. Ah, jom moo yey daan ko wóorul bu col. dàq ko plaqué si biir ndeysaan mu ne janjang. tey faralu ko woon. oh, oh jaxal jaxal kenn bëggu jaxal kenn bëggu ko kenn jaxal. laa ilaaha illallaah ñu ngi xeex xeex gu metti ci suuf. góoru Kumba Gawlo Seck. eh Mamor wàcc na di ko bëtt. góoru oh. li muy def mbaadu góoru Kumba Gawlo daf koo xam. da koo xam. góoru Kumba Gawlo gi benn bennal ma ngay door. est-ce na mu ngi. attention coup yi bari waaw xam nga ki nga xam ne mooy Mamor góoru Kumba Gawlo dafa xam. Ah. gën laa ñeme lu métti ci entraînement. waaw kooku normalement mooy ëpp avantage. waaye gis naa ne góoru Kumba Gawlo waaw dóor bi muy dóor daal te war a jàpp waaw moom daal loolu jaaxal na ma wóorul wóorul mu koy forcé wóorul mu ngi koy forcé na bàyyi xeex bi ca bëree na bàyyi bër kat abi am na kat abi amula ah. kat abi amula ah. da koo bëtt fàq ko loxo ga loxo baa nga ca kaw munul nekk kat abi trois lay doon eh. parce que bu sa loxo nekkee si kaw boo fàqee trois abi lay doon mais xiixat commencé naa am xiixat. waaw loolu mënul ñàkk xoolal li ma doon wax ñëw na am na keneen ku tëbee si làng nga ñëw dugg si. du yoon xam nga moo tax may wax ne arène national bi baax na waaye war nañ koo defaraat. war nañ koo defaraat xoolaat. xoolal kii combat bi jeexul sax mu tëbee si barrière yi wàcc. ah moo naa dina dem ardo de ndax gémmiñ gi daa mel ne mi ngi naat. dafa mel ni dafa dem ardo waaw waaw gémmiñu maam moor gi daa mel ne mi ngi naat. mais mu ngi noyyi xool ko mu ngi noyyi. non biir bi lay noyyee fi mu toll nii ndax dafa sonn. mais est-ce que teelu ta non xam nga combat boo ci jëlee yenn volume di préparer combat bi jël ci yenn volume yi faaw dala feeñ. bët yi dafa suulu euh, su ma doon góoru Kumba Gawlo fa laa koy delloowaat rek xam nga lamb kenn du ko forcer. da nga koy da koy delloowaat foofu. non kaani piic piical bu sew bi Cheikh. loolu mënul ñàkk lamb dañoo ne ñett yi moo fa am. Euh, arbitre bi soufflé euh, bu ñu xeexee day métti bu ñu bëree day métti Mamor delluwaat na. Mamor dafa bëgg a forcer combat bi. waaw Mamor xam na ne. mu ngi koy forcé mu ngi koy forcé takk na ko di raf caxabal góoru ku ma kaw la génn takk ba dañul de takk baa nga fare da koo takk ngembal ko loo bàyyi na takk ba mu ngi doorati mu ngi bi nee na ma ko takkee da koo war a xëcc da ko war a xëcc si moom oh da ko war xëcc si moom est-ce que condition physique bi des na waaw boobu nag day ànd ak souffle ah mu ñëw la ilaha illallah coach <laughs> mu ngi koy mu ngi koy raf e galgal xatar bi xatar bi mboot xatar bi ah daan na ko daan ko oh góoru Kumba Gawlo daanu na Mamor daan na góoru Kumba Gawlo Mamor utiliser na poids am roof caxabal moom la judoka yi wax us bal jaañ bal tako jaañ il bal gaañ jeexul géej léeb yaa fa aagul cey ma limal leen maa ko naxtaan Dogay mu ñuy soow maa ko naxtaan Babougan mu ñuy soow maa ko naxtaan ambulance ni muy soow maa ko naxtaan Madior Lassana bismillah fekk lee fekk lee fekk mi si jant yàlla mi yàlla mu téléphone ma jàll tafsin mu ni këng su luxu maxee amul luxu maxee Abdou Karim Abdou Karim Tambacounda jasiki Tambacounda jasiki Tambacounda Kufrin Toke Kufrin Toke Takasum. bon sant yàlla bu wax parce que aussi euh, euh, bëgg-bëgg doomu aadama moo koy am mais suñu borom moom mooy dogal yàgg nañ ko préparer depuis plus plus de deux mois yàlla def tay la sotti vraiment amuñu ci benn jafe-jafe organisé dans les règles de l'art euh, ñu mel ni yéen ñu ñëw jàpp ci ku mel ni DTV ñëw jàpp ci le parrain ma Madické ñaa aussi jàpp ci. vraiment ñun amuñu lenn lu ñu def bu sant yàlla sant euh, suñu collaborateurs yi di leen sant yeen waa Equivox ak ñëpp ñi ngeen àndal. Babacar production euh, euh, mëbët na pour yeneen journée. effectivement comme ni ñu ko waxee woon ce matin bii départ la dañuy jël suñu suñu suñu repère et bu élection yi passé incha allah ñu ñu ñu engagé suñu deuxième journée. Pape Sène dadul ñeexu ñebe kenn Pape Sène li nekk ci technique ci bopp bi nekkul ci bopp suñu la te damay bañ suñu la te Pape mag la. njëkk a bëri rek moo fi am mais du mag. du mag non génération lañ mais chaque fois mbër lay wax danaan diw moom a njëkk a bëree diw mag la wala diw jeexal na ay waay Samba. moo am te ndeteel. ndegal bañ na runkum. grand combat bi démarré na diggante ki nga xamante ne moom mooy Sunjata ak Pape Sène Pape moo ngemboo ngemblu violet bi mu ngi ñaan. mu ngi ñaan Soundiata ngi taxaw di ko déglu Soundiata it ngi ñaan Soundiata ngi ñaan moom it ñu ngi lewtoo Pape Sène day ñëw mais Soundiata ngi ne tekk di ko déglu Soundiata ngi ne tekk di ko déglu Soundiata ngi ne tekk di ko déglu Soundiata ngi ne tekk di ko déglu ñoom ñaar ñu ngi lewtoo dagg na Leewtoo bi léegi day waaj a ñëw. Pape song na song bu bon mais jàpp nañ Soundiata jàpp na par loxo góosam bi Soundiata bal na ko. di xaar bal na ko di xaar Soundiata Soundiata bal na ko. di xaar Pape Sène lu liggéey. Soundiata ngi ne tekk waaye Pape Sène loxo maa ngi ci ngemb li. waaw Pape Sène daan mbekk mbër mu xaar. luur la féete na ko suuf. te moom du mën a xaar. féete na ko suuf léegi Pape Sène njëngeñ na ko. surga tam mi ngi koy jéem a pomper pour mu génn. waaw waaw maanaam mbàccum gerte lañ koy wax. mbàccum gerte waaye eh, eh, est-ce na wóor na. Eh, Soundiata li mu def wóorul Soundiata li mu def wóorul. waaw Pape Sène a ngi daw. ah Pape Sène a ngi daw la ah, gannaaw pour mieux sauter maanaam lu tubaab bi naan reculer pour mieux sauter. résistance baa ngi fa. non Pape Sène liggéey na boo xoolee Pape Sène xam ne Pape Sène mii liggéey na. waaye dafa bëgg a abréger combat bi. waaw combat bi bu yàggee nag xam naa dina xaw a métti tuuti ci Pape bi mu am. waaye Soundiata li mu def sànq wóorul. waaye Soundiata bàyyi di dóor saa jàpp fenn si bëre dóor lool wóor. wóorul dañ lay paqueté. maa la ko wax xëy. waaye ñu ngi ne tekk. Pape Sène mi ko dénk ba léegi jàpp loxo droit am ci ngemb Sunjata Sunjata jàpp loxo gauche bal benn loxo bi ci kaw. ñu ngi bëree ñoom ñaar Pape Sène ak Sunjata bàyyi na loxo bi mu jàppoon sànq delloowaat na ko fa. loxo ndeyjoor bi bi da koo bëgg dafa bëgg a dindi loxo bi. voilà pour mën a pour mën a aspirer Sunjata mu ñëw. pour Pape Sène mën a liggéey ndax Pape Sène boo ko xoolee gis nga. Pape Sène toog na Pape toog na li mu doon def. lan la li mu a xar jéppal. waaw li mu def tegu ko fenn. gone gu ndaw nga koo xar jéppal noonu. tegu ko fenn bu la busloo nga toog. yombalal na jël bi. da koo buslu mu toog. laa ilaaha illallaah mu koy yëkkati mu koy akolaat. kuñ ma jox rek. mais am nga waaw waaw waaw mais xam nga rek yàlla baax na mais doo fi bu fi tuddee nit rek gars yi ñu naan mooy loolu incha allah incha allah waaw incha allah. Aminata Lo ak euh, monsieur le maire Diarra ñu ngi koy jox drapeau am ñuy félicité ki nga xamante ne moom mooy Soundiata yàlla may na ko voilà. nuyu téléspectateurs yi lay seetaan yëpp di la wax ne kontaan naa ci pikin kontaan naa ci doomu Pikine man Pikine rek laa donc su ñu ñëwee ci arène national bi tey ubbi fi premier combat muy un 19 janvier 2019 ma fekkee ko en tant que maire de la commune de Pikine Nord dama ciy sant yàlla ñiy basket ñoo ngi yor seen bos. ñiy football ñoo ngi yor seen bos mais ñiy yor làmb te nekk ak lu làmb di am xaalis ci làmb di dund ci làmb muy promoteur bi di amateur bi di entraîneur bi di di di di di ñiy seetaan di ñëpp nañu sàmm làmb sàmm bi rek du infrastructure bi rek mais génn mu xeex mhm. génn agressé mhm. bu yàggee kenn dootul ñëw dañu daw làmb te day fay làmb